accident bu yéemee mo am tay ci autoroute bu Dakar ben auto bu bu jogé won Dakar di ñëw direction Patte mo moo raté virage am daal di wodd ci biir pax bi. bu titangi bilan bi di kenn faatuwu ci waaye lu ñu gis di mooy xale bu góor ak ku jigéen bi àndoon ci oto bi am nañu ay gaañu gaañu yu méttee méttee sa sapeur pompier police ak gendarmerie ñi nga xam ne ñoo yeggoon ci mbir ma daan nañ jël ku jigéen kii ak ku góor kii yóbbu leen ci hôpital général bu Grand Yoff